عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق du xam-xam du wilaaya du du wërsëg gëm naa ni itam yii yàlla du ko jox malaayka du ko jox jinne du ko jox bàyyi bi nit la ko jox te ci nit ñi laa bokk ngir lan su la ko yàlla joxee tey di leen altine ëllëg talaata man na ko jox wala mu jox lu ëpp la mu la jox waaw waaw moroon moroon def <coughs> bu gëmee yàlla sa gëm ci yàlla boo gëmee yàlla da nga wakkilu ci yàlla doo xañaan doo ñàkk bopp du nekk li nga éy na sa bopp nga éy ko ñëpp dina mënoo leen a defal dara waaye xëy na jàmm ku ne mën na ko hmm? ku ne lu mu xam nga xëy ko te ko te jàppale ko ca bu ci bëgg bu ci daal di gëstu mag ñi seen jamono moo gënoon ndax fuuf waaye nag ci la seytaane gënoon néew doole ci tey ñoom lañu xamoon dama la wax de mu ne rajo bi mu ngi ko doon waxee mu jàngal waaw waaw mu ne yéen jàng xam-xam ngir xam nu ngeen di waxee hmm? ak mën a wax bu ko te kii jàng xam-xam ngir jëfe xam nga duñ benn jàng xam-xam ngir wax hmm. pànk mu la wax nga mën koo tontu waaye bu ko te jàng xam-xam ngir xam sa diine pour jëf xam nga eh. kii pratique yéen tubaab yi kii pratique. Mm-hmm. Ah? ak ki jàng bi wéy. Hmm? bokkuñ bokkuñ kon nag pratique dina mm-hmm. te ji nga ku jël boppam jox ko yàlla. yàlla moo lay téyel boppam te it moo lay xamal fa ngay aw xam mm-hmm. nu mel hmm? pot nga teg ko ci kaw gaz bi lu hmm. hmm? ndox ndox moo ci tege de hmm. gaz baa ngi tàkk dans quinze minutes laala ndox laala ndox boo lakkee lu la lakk ndox nga wax ndox la lakke bi nga ko boole lu ko ëpp doole safara dafa jël jikkoom jox ko ndox ndox mel ni safara tey ndox su boobaa mi ngi fi ndox la mm-hmm. waaye jikkooy safara la yore buñ toxalee gaz bi teg ko fële bàyyi fi ndox mu tàng jir nga ñëw te laajtoo nga guux doo alal mm-hmm. hmm? ci fekkee biñ koy tàngal moom dana xam ne li ndox mu tàngal la mm-hmm. boo bëggee ñëw mu laa ah, ndox mu tàngal la waaye biñ ko fi taajee rek kenn néew fi muy ndox mu tàng nga ñëw laaj ko jàppale ndox la nga bëgg a naan doo alal kooku mooy kiy dugg ci mi ci wàllu yàlla yi te xamul leen ala ko rek yàlla dafa wax ci àdduna xus mu ne sama jaam bi du dañ di may jegañu ci ay sujjóot ak awraat ak i nangam ak i nangam mu ne ba man yàlla ma ne bëtam yi muy xoole loxo yi muy jàppee noppam yi muy déggee tànkam yi muy doxe waaw kooku hmm? waaye nag lu la yàlla mën a may ak lu mën a doon lu tax nga doo yàlla nag mm-hmm. waaye génnoo yàlla him nag ndax lu tax hmm? safara boo ko doon sotti fi léegi mu tàkk mm-hmm. ndox lu mu tàng tàng boo ko sotti fii yokkutoo yaay rek mm-hmm. ah? ndox mu tàng ci ci néegam ñax hmm? tooy rek kon sa ndox mën a tàng ba taxal ñax dégg waaye safara ak ñax foofu la yàlla ak lu may may jàmbi foofu lu yàlla xuuteeg jàmbi seen mag ñi seen lépp dañ ko jox yàlla rek seen lépp dañ ko jox yàlla moo tax ñu am yàlla moo tax bay mbay bay mbay daal ñuy wax ne jàngaleen téere yi tey waxtaan ak mag ñi jàngaleen téere yi tey waxtaan ak mag ñi la ci dënn mag ñi kenn du ko bind ci téere ngay waxtaan ak mag moo xamal la ko waaye kenn ci téere de hmm? Hmm? loolu mooy mooy mooy secret <coughs> di nga ma jeexal jant bi sona xam nga xaal xaalam baa ngi nii laam moom mu muy nii hmm? waaye fa am secret waaw ah, kii yéen ci def secret yoo xam ne ku ko jëloon du ko am njëriñ yow yaa xam secret bi waaw ah, waaye ko xam ne mu xam ko ne waaye secret boobu nga ci def ki ko xamal mu xam ko bu la neexee mu yow nga soppi nga soppi bi ba lu mu ko xam-xam bu ko jëlee dootu ko mën a ubbi lépp noonu la demee waaw moo tax yàlla ne hmm, yàlla waxul fenn ne jàng leen feneen wax wax faqaroo maa tay maa tay maa tayasara min alquran hmm? waaye jàng ngir xam déedéet wattaqullaha wa yu'allimukum allah ragaleen yàlla yàlla xamal leen kon na ragal yàlla bàyyi dafa daan wax ne mooy caabi lépp boo bëggee wërsëg hmm? wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu laa yahtasib hmm? boo bëggee xam-xam wattaqullaha wa yu'allimukumullah hmm? mu bëggee yomb yomb bu ma ne taqillaahi yaj'al lahu maxrajan yaj'al lahu min amri yusran lépp yàlla wax na ko kon caabi ji mooy ragal yàlla ragal yàlla gëm yàlla ragal yàlla mooy tax nga mucc ci lépp loolu laa xam gëm yàlla ragal yàlla gëm yàlla ragal yàlla waaw bëgg lu baax ànd ak ñu baax ñi baax comme jant bi sono ñu yemaale foofu beneen jamono rek